na nañu yar suñuy doom. Oh, seen client seen client. Sénégal benn la. seen client état d'esprit état d'esprit seen client. réew jàmm lay nekk. état d'esprit seen client maître état d'esprit seen client. waaye Adji Sarr gis ngeen ko ba ñëw di saaga. aji dafa yegg si jekk ànd ak caaj ànd ak sago gars yi gars yi terrorisé tiit di saaga ku mer boo aji merul ñi mer. Ya nañ dee. yow mii yaa sonn yow. ci mer yow sonn yaa ànd ak pression mer. ñu ngi yéen a mën a essayé. tous caravane. nañu saa doole ko. mec waxoo dégg nga tu fais du cinéma mec tu fais du cinéma. tu fais du cinéma mec. Olof Ndiaye yéen a ko mer. cinéma ngay def cinéma ngay def. xam nañ boromam ah. lépp dina leer fii xoolal fi ñu nekk nii ci biir léppay leer dina xoolal audio yi audio yi vidéo yi lépp ngi fii di